بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن وعميانا والذين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 أما بعد أيها الإخوة أيها الإخوة الشباب شباب حركة الفلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلدي نوغي سنسون برم تبارك وتعالى بنوي يب di sant sunu mbokk yi nga xam ne ñoo amal jotaay bi muy ndaw ñi nekk ci xarakatul falaax la ko tàmbale ca seen njiit ba àgg ci ñëpp ci am bekk ci daje ñoom ci bës bi di ñettelu fan ci atmi atum julit ci waxtaan wo xamne waxtaan wo xamne ne xol ba moo al imamatu wa makanatuha fi islam islaam yilimaan place bi nga xamne mom la am ci lislaam lolu moy xol waxtaan danañ ci waxtaane rek ñeenti tomb du gudd lool ndax xam nañ ne dafa danoo nekk ci actualité boo xam ne muy jamono joo xam ne nit ñi ay laaj bari na ci seen bopp lool lool yoo xam ne soxla nañ ko xam ci seen diine moo tax wàllug laaj bi su fekkee ne bokk na ci li mbokk yi programme ñu bàyyil ko tuuti ab cër moo tax waxtaan wi xëy na mën naa bañ a gudd genn guddi ñeenti tomb yi ba ca jëkk moo di bayaanu maana al imaama jiite ci boppam wala yëlimaan te ngeen koy tudde mooy lan ñaareelu tomb ba mooy aqsaamul imaama jiite googi ñaata xaaj la am ñetteel ba maa yadullu ala izami sha'ni al imaama yi nga xam ne fi lañ sukkandiku ba tegtaloo ne ilimaan dafa am place bu rëy rëy ci lislaam ñeenteel ba moo di xutwatun naxwa tasxiix ay jéego yoo xam ne war nañ koo seqi fii ñu toll ngir réparer lu bari loo xam ne lu yàqu la kon ñeenti tomb yooyu ci lañ fas yéene waxtaan insha allah ñu tàmbalee bu jëkk bi mu di lan lan jublu ci al imaama wala imam moy lan borom xam-xam yi wax ne baatu imam bu dee ci arab ñu ngi ko jël ci amma ya ummu loolu nag suñ ko waxee mooy jiite na rek képp koo xam ne jiite na ñu di ko roy loola dañ ko tudde imam moo tax dañuy wax ne ida taqaddama wa saara dalilan yuqtada bihi aw yaqtadi bihi man waraahu lépp loo xam ne def nga ko dalil mu jiitu nga topp ci moom di ko roy wala ngay jëfe ay ndigalam loola imaam la ci yow loolu moo tax ëpp téere ñi di ko tudde imaam sunu borom tabaraka wa taala sax tudde na téere yi ay imaam bokk na ca wax ne wa min qablihi kitaabu muusa ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة من لجيتون تير بيم واتيون في موسى التوراة ديك نا نيك يليمان نكي نجيت لو خاني لي روي لا نيك يتم يرمان سونو تبارك وتعالى وخات نكو نانا يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا نانا بسنجي نيو بوخا غي كان كوتي نيك داني لاي و سي سب تيري انام غي نيو جانغ ساي تيري لا ني جانغ كوتي سكرام لامي وخت بنن ايه اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا mune bis ngi ñew bo xamne kenn ku ne dañ lay wo ci sa téré waye téré bi bokku imam la ko tuddé mune bi imamihim mu teg ca ni képp koo xam ne bañ koy jox téeréem dañ ko koo joxe ci wetu ndeyjooram kon loola day wone ne tiraanga ngoog nee na ñooña dañuy jàng seeni téere ànd ak mbégte ma ñuy wax ne ahum iqra'u kitaabiya xool leen sama téere bi nangu koo wone bu baax a baax safaan ba nag yàlla na musal mooy ña ñuy jox seen téere ci wetu càmmoñ nga ñooña duñ bëgg a gis sax la nekk seen biiri téere borom bi tabaraka wa taala tuddewaat na téere imaam ci feneen mu ne wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin nee lenn lu nekk lu am lu ne bind naa ko ci benn téere boo xam ne bu bir la waaye téere boobu kooku imaam la ko tudde kon li ngay jële foofu mooy lépp loo xam ne lu jiite nit la mu di ko roy top ci mom loola mën nga ko tudde imam bu la neex loolu nag mooy ci wàllu luxa gi maanaam ci wàllu lang imam loolu lay fi bu dee nag ci lislaam liñ jublu ci imam dañuy wax ne al imaamu man yatamu bihi nnaas min raisin wa matbuuin wa minhu imaamu salaati والخليفة وقائد الجند buñ nee ilimaan ci sharia gën naa yaatu li ci ñu bari di dégge buy kuy jiite julli rek waaye képp ku la jiite moo xam daa nekk njiitul réew wala njiitul région wala quartier wala mu doon sax ku ñuy topp ci wàllu diine ñooñu ñëpp ay imaam lañ leen di tudde ba ci soldaar ba jiite soldaar ya sax mooy seen ilimaan maanaam mooy seen jiit ca lool kon bu dee ci wàllu sharia loolu la ñuy tudde imaam moo tax yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa sallam ne innama ju'ila al imaamu li yutamma bi imaam dañ ko wut ngir ñu roy kon daal imaam loolu rek lay jëriñ kon képp ku ñu roy bu la neexee kon mën nga koo tudde imaam ci wàllu sharia ba tey kon baatu luxa bi ci baatu làng bi ak baatu sharia bi ñoom ñaar sorewuñ ndax mooy roy téef rek boo xam ne ku ñu roy la dañu nag baatu imaam su fekkee dégg nañ ko kon dañuy xam ne jëmmi baat bi doonul aw tagg doonul aw xas itam waaye lu ci nekk mën na koo doon it nag moo tax boroom xam-xam yi ñu wax ne imaamu hudan wa imaamu dalaal ñi jub danañ jub ba nekk ay yélimaan ca seenu njub maanaam jiite ñu bari ci ak njub waaye ñi dëng itam ñu ñu jàdd siraatul mustaqim danañ dëng ba seen dëng googee ñu doon ca yilimaan di réeral ña topp ci seen gannaaw ñëpp kon baatub imaam du tagg du ŋàññ waaye lu ci nekk nag mën na koo doon mën naa nekk aw tagg mën naa nekk itam nag aw ŋàññ kon loolu dana jaadu nu xam kon imam ñaata xaaj la am kon mooy tomb ñaareel ñaata xaaj la am xaaj bi ci jëkk mooy li ñu tudde al imamatul uzma mooy imam bi nga xam ne mooy imam jëgg na kawe ci wàllu jiite moo tax dañuy wax ne al imamatul uzma hiya tawalli umuri al umma li tadbiriha ala naxwin yadmanu lahum salaax addiini wa dunia nee na mooy ka jiite xeet wi ka jiite askan wi di doxal seeni mbir ci anam goo xam ne dana mën a baaxal seen àdduna ak seen alaaxira kon kooku mooy imaam bi nga xam ne mooy jiite askan wa mën nañ koo tuddee jiitul réew moo xam xalifa lañ koy tudde wala président wala tur ko jox ñaareel ba moo di al imaamatu fi salaa yilimaani julli yilimaani julli nag li ëpp ci suñu waxtaan fi la jëm tey moo waral moo waral tem danañ leeral nag ca kanam jokkaloo nga xam ne jokkaloo ilimaani julli amoon na ko ak ilimaan ji jiite réew ma ci taarixul islam ñaar yooyu niñ taqaloo woon danañ ci waxtaan tuuti ci ci kanam waaye ñu xam ne ñaareel ba daal kon mooy ilimaan joo xam ne ilimaan yi julli la ñetteel ba moo di al imaamatu fi diin mooy koo xam ne ilimaan la ci diine maanaam njiitul diine la kooku mansibun ilmiyun rabbaani place la ci wàllu xam-xam place la ci wàllu yar doomu aadama yi kooku la ñu tudde imaama fi diin képp koo xam ne wàcc na place boobu itteem fii ci kaw suuf mooy liggéeyal lislaam ak jullit yi loola la fiy def tasaare xam-xam bu wér tasaare pas-pas bu wér yar nit ña ca loola nangoo muñ nag lépp lu tege ci kawam ci lor ci yoon woowu nga xam ne loolu la jaar kon nag imaama goog yi muy njiite goog ci diine nga xam ne ay doomi aadama yu nekk ci kaw suuf lañ yoo xam ne seen itte mooy jàng diine xam ko ak jëfe ko ak tasaare ko ca na gën a yaatoo te jaare ko ca na gën a wéree ñu doonul ab chart ñi doon yilimaan juy jiite ci julli mën naa bañ a doon yilimaan juy jiite ci jàkka mën naa bañ a doon itam njiitul réew waaye la muy liggéeyee loola moo ko def njiit ci diin la muy tasaare ci xam-xam ak la mu cay yar ci ay doomu aadama loola moo ko jox place boobu ñaare nag alxuraan ku muy tudde wàllu imaama gii ci jublu maanaam jubluwu ci njiitu réew la jubluwu ca kay jiite ci julli kepp waaye gii la ci jublu gii nag nit ki ngir mu nekk njiit ci diine dafa am ñetti charte yoo xam ne mënta ñàkk saa bu dajee ci yow rek moo xam nit ñi jiital nañ la wala jiitaluñ la waaye yow njiit nga ci diine fa yàlla bu jëkk ba moo di al bi subuli l hidaaya wa shiddatu tamassuki bi sunna mooy jàpp ci buum gi nga xam ne buumu gindiku la buum gi jële nit ci réer yóbbu ko ci leer jële ko ci lëndam yóbbu ko ci leer muy buumuk alquran ak sunna jafandu ca bu dëgër ñu koy tudde hidaaya kooku mooy charte bu njëkk charte ñaareel ba moo di alsabru bi anwaaihi mooy mu nangoo muñ nag ndax liggéey bu rëy yan bu rëy moom la yan yanub tasaare dëgg ak digle lu baax ak tere lu bon képp ku ko yanu faaw nga doon ab muñkat wala bala ngaa waaxu ñaari jéego da nga wàññiku ndax ñaari mbir ngi fi yoo xam ne dañuy tax a benn bi mooy xëpp bi ci des mooy xupp xëpp mooy ñu sotti la alal ne la bàyyi lii te ñëw ci lii nga bàyyi la nga nekkoon wàññi su loola te xupp moo cay teg tegu xupp gi mën naa àgg ci dóor mën naa àgg ci tëj mën naa àgg ci sax faagaagal bakkat yaar yooyu nag ku leen mënta jànkoonteel doo mën a muñ soo ko mënul sa imaama ci diine muy sa njiite ci diine moom du sori léegi nga wàññi ñetteel ba moo di al yaqiinu raasix mooy kóolute wóolu yàlla nag bu dëgër ci ne yàlla mii mooy taxawu diineem moo koy dëgëral mooy taxawu ñi ko nekkal ci diineem itam moo leen di dëgëral kóolute googu nga gëm ko am ci yaqiini xol ni mu la wóor ne sa rëddi baaraam yi ngay gis tey rëdd la gëm googu mooy tax wàññi ko duutu am ndax yaqin xas na am ñetti sharf yooyu sunu borom tabaraka wa taala tudd na ko ci benn aaya nee na wa jaalna minhum aimmatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun wa jaalna minhum aimma def nan leen ñi doon ay njiit yahduuna bi amrina kon hidaaya ñëw na nee na ci sama mbirum bopp muy alquran ak sunna ca lañ gindikoo ñoom ca la ñuy gindee ñeneen itam waaye lamma sabaru ba ñu muñee na am loolu mënta am te fekk muñ gi ñëw wa kaanu bi ayatina yuqinuun yaqin ja daal di ñëw ñetti sàrt yooyu képp kum daje ci yow am nga yaqin ci sa boroom ak sa diine yaqin ju wér ci ne diine ji diine yàlla moo koy taxaw te diine ji nit mënta baax te tënkuwoo ci nit mënta bon te tënku ci yaqin boobu soo ko amee nekk ci liy gindi doomu aadama di ko jàng di ko xam di ko tasaare boole ko muñ lépp loo xam ne tegu na ci sa kaw ci xeeti lor moo xam wax la wala jëf ñett yooyu su dajee foo mën a nekk yow imaam nga ci diine fa sunu borom tabaraka wa yàlla nu yàlla defal na lépp kon loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci njiit yi njiitul askan wi njiitul julli njiit ci diine su fekkoon ne li ñuy tudde kilifa diine am na place ci lislaam dañuy wax nekkoon mooy place bii ma tudd léegi waaye léegi defe naa di kilifa diine fi ñu koy jëfandikoo fépp soo doon jël benn par benn di leen jaarale ci ñetti sart yooyu réew na kuy néew na kuy jaar ci examen boobu jàll dese garaatub kilifa diin loolu néew ñeenteel ba nag moo di al imaamatu fi kufri wa dalaal jiite nag ci mbon jiite ci ak mbon bu jiit lu bon la ko tàmbalee ci jeng ak xeeti càggante yi ak xeeti mooy yàlla yi ba keru mi àgg ci kéefar yooyu yépp lenn lu ci nekk lislaam dana ko tudde njiit man dana ko tudde imam moo tax borom bi tabaraka wa taala ne wa innaka su aymanahum min ba'd ahdihim wa ta'anu fi dinikum diinikum a'immat al-kufr innahum la aymaana lahum laallahum yantahun neena ñoo ñi ngeen fasanteel kóllëre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lay waxal ak sahabaam ak mboolem jullit yi ba kew aduna di ba kër bu soob suñu borom tabaraka wa taala nee na ñoo ñi ngeen fasanteel kóllëre su ñeentee ñoom ay accord ñu dem ba mu yàgg ñu fecc seen kóllëre gi yéen la ngeen diggee woon ak ñoom jëfuñu ko nee na boole koog loola yemuñu ca waaye wa taanoo fi diinikum ñu wëlbatiku di ŋàññi seen diine ak di ca wax lu ñaaw nee na su boobaa fa qaatilu aimatal kufri xeex leen ak yilimaan yi yéefar yi mooy ñu jiite nit ñi ca kéefar innahum laa aymaana lahum ñooñu amuñu kóllëre laallahum yantahuun ndax ñu mën a dellu gannaaw ba mën leen a bàyyi ngeen yor seen liberté mën a dund seen diine foofu kon sunu borom tabaraka wa taala tudde na njiit yu bon yooyu ay nga xam ne ay yéefar lañ teewul tudde na leen aimma te aimma mooy jamu imam maanaam mooy ay ilimaan yu bare bare bare وخاطنا من سنبان تبارك وتعالى في سورة القصص وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون يعني نيونيو دفنا شي نيوم أي يليمان أي نجيب يوخم ندني واتي جميع سوا يعني نيونيو قلل من يوم القيامة دون أم دمبل سنبان تبارك وتعالى دولين دمبلي تقول يالا دمبلو تبس بابا doo am ndimbal kon loolu lu mat a raglu la ndax kooku waxul carrément ay yéefar la waaye a'immatan yad'una ila naar kon imaamu dalaala foofu lay dugg ilimaan ji nga xam ne maanaam njiit li nga xam ne mu ngi tuddoo lislaam ba noppi di woo nit ñi ñi di ko wuy si mu di leen dugal ci caay-caay di leen dugal ci bidaa di leen ci saxal ñooñu suñ jàngee ay jooju war nañoo tiit moo di ñi nga xam ne dañuy woote ci sawara te defe ne ñu ngi woote ci njub yàlla nu yàlla musal ci loolu kon ñeenti xaaj yooyu moom la imaam am ma wax nag ne bi nu ci gën a fii nu toll nga xam ne thème d'actualité la mooy imaam yi nga xam ne moom lan am tey muy ilimaani julli palaasam nag bi nga xam ne moom la ko lislaam teg moom lan soxla woo xam bokk na ci li nuy won ne lislaam dafa teg kilimaan ci place bu màgg mbir yi may bëgg a tudd mbir yooyu bi ci jëkk moo di ne sunu borom tabaraka wa taala ñim tànn ci bindeefam yi nga xam ne ñoo ko ci gënal muy yonente ya ñooñu ay imaam la leen def ay yilimaan la leen def moo tax mu wax ibrahima alayhi salaatu wassalaam ne inni jaaciluka linnaasi imaama maa ngi nii di la def yilimaan nga jiite nit ñi maanaam nga doon seen njiit boobu place bu mag la ibrahima ne ko wa min ci ak la bëggam lu baax nga ma tànne ma doon ndax samay bu ci dikk rek ku ne day doon imaam ah, sunu borom tabaraka wa taala tontu ko foofa tontu ko tontu loo xam ne leer na nañ qaala laa yanaalu ahdi zalimin ibrahim ku am lu baax la mu nekk imaam ci diine waaye mu bëggoon ay sëtam itam mën a am loola yëmul ci boppam waaye xalaat na ci sëtam yi ñëw ëllëg mu ne ko wamin durriyat ndax danga nga boole boolewaale mboolem sama sët yi borom bi tabaraka wa taala ne ko ah googu këllëre nag du ma ko fasanteeg yow ndax kuy tooñ bokkut kuy tooñ bokku ci laa yanaalu ahdi zalimin sama këllëre du ma ko fas sama diggante ak kuy tooñ kon na nga dégg ne ñuy ñëw ëllëg kat kon ñuy tooñ a nga ca waaye buñ bokkoon ci say sëtit kat këllëre gi ñoom bokkuñ ci kon loolu daal di nekk benn qaacida mutarida qaacida sharciya mutarida muy benn règle générale boo xam ne amul benn exception ci l'islam moo di ne diine ak mbaax ak njub ak am place ci diine du li ñuy donnante ci aw askan du li ñuy donnante ci aw askan faw ñu baax la ñu doon waaye borom bi dana ko déedéet mbir mi du mbirum deret du mbirum geño du mbirum askan waye mbirum jubla wa min durriyati hala la yanal ahd zalimin kon regal general bi moy nit ki disu ko don ci diine ci walu askan waye wiraasatun rabbaniya fa man xaqaqa shuruuta al imaamati fi ddiini istaxaqa al imaama charte yiñ tuddoon ne mooy tax nit ki nekk imaam ci diine te alquran tuddal ko boppam charte yooyu fu ci yow yaay doon njiit waaye kat yaay sëtub diw waaye yaay doomi diw faaw nga doon lim doonoon te jaaroo fa mu jaaroon déedéet loolu moom diine lislaam ji amu ci waxuma la diine lislaam waaye doomu aadama ci seen jëmmi bopp doomu aadama yi ci seen bopp lii ñuy dund ci seen àdduna képp doxewul noonu wala boog ci li ngeen di gis ndax nit ki bu nekkee ab tailleur ba génn àdduna palaasam bi mu nekkoon machine am bi mu yoroon di ñaw mën nañoo jël jeet doomam rek ne kaay continuer def li sa baay doon def ko fekk moom jàngul woon ñaw loolu mën naa nekk defe naa mënta nekk ku ko yëg sa yéere bu boobaa musiba am docteur bi doon faj ñu ne day faj bët wala day faji nopp wala day faj biir wala leneen ba génn àdduna ñu fekk doomam joo xam ne ab sareet la yoroon di ko dawal ñu ne yow kat sa bàyyi génn na àdduna kaay toog fi mu toogoon di faj kooku da nga dikk jox ko saw yaram munta nekk kon doomu aadama yi ñuy dund ñoom ci seen jëmmi bopp nanguwuñ cee jëflente noonu kon nag logique boobu muy mantiq boobu sunu borom tabaraka wa taala moom la jëfandikoo ci diineem diine ji du lu ñuy donnante ci aw askan jamono yoo xamee ne nit ñi dem nañu ba seen diine dañ koy donnante ci askan seen wàllu diine day mel nii mu mel rek muy wopp day mel ni docteur bi nga xam ne doon na bàyyam te du médecin nit ñi ñëw di fa fayu am ca yaakaar ndax gis nañ ko muy sol teni bi niroog ba bàyyam doon sol amaana ñàkkul sax diplôme bu baayam amoon mu jël ko wékk ko fa tiim fa muy faje ña xamul dara am ci yaakaar di ñëw di ko jox seen wér gi yaram seeni feebar di dolli ko di yokkoo ci mbirum diine fi mu nekk lu mel noonu noo koy dund ndax ay nit nekk nañ ci diine di ca góorgóorlu ba jóge fa ay doom aadama ñëw toog seen place yoo xam ne dañ ne ñii ñoo leen wuutu ca diine ja te ñu jànguñu diine ja xamuñu ko waaye askan wa moo leen fa teg lu mel noonu nag su amee ka ñëw jël sa diine jox ko ne ko maa ngi nii loo ma digal ma def loo ma tere mu bàyyi la kooku wuute wala docteur ba nga xam ne da nga ne ko faj ma te fekk jàngul faj kon loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala joxe régal boobu laa yanaalu ahdi salimin te ab yonent lay waxal boo xam ne du yonent bu bu simple donte benn yonent bu simple amul waaye dafa daf caa dolli ay garaat daa bokk ci ulul azmi min ar rusul muy juróomi yonent képp yoo xam ne ulul azmi la dolliwaat ca nag nekk xaritu sunu borom tabaraka wa taala wattaxada allahu ibrahima xalila texte bu mel noonu ibrahima képp moo ko am ci alquran yàlla jël na ibrahima mu dib xaritam boobu texte ci alquran ibrahima moo ko am ànd ak loolu bi mu ne ko def naa la njiit mu ne ko sama sët yi nag mu ne ko bokk ku jubul du ci bokk mu leer kon loolu duma ma ta xam la kon mbir mu jëkk mii wane ne place imaam ci diine place bu màgg la moo di yonent yi borom bi tabaraka wa taala imaam la leen tudde ñaareel ba moo di sifaatu ibaadu rahmaan muy melokaanu jaami yàlla yim fonk yi nekk ci mujjug suuratul furqaan te sun doom ji doon jàng léegi doon ko jàng dal na yàlla dolli tawfiq te dolli ko ñëpp melokaan yooyu ay doomi adama la yo xamne borom bi tabaaraku taala dafa tag melokan ya kon ñooñu bo doon laaj seeni tour do xam ñu mu doon da tambale ci ibadu rahman alladina yamshuna ala al ardi hawdan ba fa wa jeexe lépp tay taggaat borom bi tabaaraku taala day tag ñooñu waye ñu mu doon ndax ku la doon laaj ñu mu doon mën ngaa rempli turée ni ñi mooy diw ak diw ak diw ak wala man réew lañ dëkk nga ne ña nga Sénégal wala ña nga Màkka wala ña nga feneen déedéet amuñuy tur amuñu dëkk mën ngaa wax ne daal ab fiche la boo xam ne rempli wuñ ko wenn tur ku jël melokaan ya rek mën nañ faa bind sa tur melokaan yooyu borom bi tabaraka wa taala yem leen taggee daf caa boole ne ñu baax ñooñee de bokk na ci seen melokaan yi nga xam ne lu naa ko man mi leen bind suñ borom ay wax de mooy la ñuy wax naan yow sunu borom yàlla nag nu def ay njiit yu baax nu nekk ay ilimaan yu baax mooy fa suñ borom tabaraka wa taala di waxe ne walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna lil muttaqina imaman yàlla na nga nu def nu doon ay yilimaan yu jiite nit ñoo xam ne ñu baax lañ kon ñaan koo gi ñu ñaan ak njiite nam jiite ay nit te fekk ci njub nga leen jiite ñooñu itam doon ñu baax loolu aw melokaan la sunu borom tabaraka wa taala tagg kon day wone ne ah, ak imaam kat lu baax la ñetteel ba moo di dafa bokk ci xéewali sunu borom tabaraka wa taala yi nga xam ne da koo xéewale doomu aadama yi nga xam ne dañ leen a suufeel ci suuf wayafal leen defe na duñ dara fekk ñu ngi ci njub borom bi tabaraka wa taala nee na bokk na ci xéewal yi ma leen defal mooy yëkkati leen bañ doon ay imaam ci diine yëkkati leen bañ doon ay imaam ci diine mu ne li ko borom bi tabaraka wa taala wax wa nuridu an namunna ala alladina stud'ifu fi l ardi wa najcalahum a'immatan wa najcalahum alwarisin nee na man borom bi tabaraka wa taala dafay xéewal ñi nga xam ne dañ leen a wayefal te fekk wayefuñ fa man nee na ñooñu dama leen di sottil xéewal xéewal bi mooy lan nee na danaa leen def ñu doon ay ilimaan ci diine ay njiit ci diine danaa leen jafit jafit ñi nga xam ne ñooy mujj ci seeni loxo lay doon wa najcalahum alwaarisin moo walaqibatu lilmuttaqin mujj ga muy la mujj ci baax ci loxo ñu baax ñooñu ci lay mujj ñeenteelu mbir mi wone importance u imaam ak palaasam bu kawee ci lislaam mooy rôle bi nga xam ne rôle bi nga xam ne imaam moom lay joué ci mujtama maanaam ci société bi sas wu rëy wi nga xam ne imaam daf koo gàddu ci société bi kooku li ko jox place bu rëy moo leen di jiite ci julli te julli moomu mooy li gën a màgg ci ponk lislaam yi gannaaw boo xamee ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jàll mooy ponk bi ci gën a màgg ke leen ci jiite kon woye ko imaam mooy jiite kon ñi topp ci moom di ko roy imaam mooy orienté mooy digle lu baax imaam mooy jàngale imaam mooy waaraate yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp da ko doon def moo saxaabaam ya jël jàkka ci boppam def ko sax mu doon bérébu dajewukaay boo xam ne fa la jullit ya di diisoo ci lépp lu aju seen wàllu diine lépp lu aju ci seen wàllu àdduna di jàngal nit yi ci biir jàkka ja tawxid di leen jàngal fiq di leen jàngal jikko yu rafet di leen digal lu baax di leen tere lu bon imaam mooy ki nga xam ne ku sàggan ku càggante gaar boo delsee ci moom moo lay yee ñu bari dañoo defe ni imaam yi ñuy nelaw lañ doon waaye fekk xam nañ mbir yi ba àggal na cell lu bare bare bare su fekkee nag imaam mel na nam war a mel a tax ñuy wax danañ ñëw ci loolu ci kanam tuuti waaye ñi jàng diir ba xam ko ba góor góorgóorlu ci jàng jamono ba dégg ko ñooñu dañoo jàpp ñoo ñooy ñi gën a yeewu ci suuf moo tax dañoo gis ne bokk na ci rôlu imaam mooy tanbihul gaafiliin ñi sàggan ci seen mbirum diine wala ci seen wàllu àdduna sax buñ dikkee ñoo leen di yee ne la defal nii defal nii bàyyil lii bàyyil lii ndax soo ko defee loolu lor lay doon ci yow képp ku feebar mooy jóg di la seeti di dox ci aajoy doomu adama yi ku réer mu xamal la ku jaaxle mu gindi la ku sa jaaxle dañ ku jaar yoon wudul woowa mu laaye la biir bépp diggante boo xam ne ñagas na ak jooyoo am mu def ay jéegoo ngir xalaat seen diggante nit ñi sore te war a jege muy dox di jegeele seen diggante bépp jooyoo boo xam ne am na ci askan wi mu dox ba mu dañ kon jataayu imaam ci société bi dafa doon boo xam ne bu rëy la ma ne su fekkee ne sax imaam daf na li ko war dëgg dëgg dëgg tribunaux yi mën nañoo dem ba dootuñu am luñ liggéey ndax ñoom la société bi doyloo doyloo boo xam ne luñ gëm la ñaare bala ngaa gis ab dossier ci tribunal bi jëkk nañoo yaakaar ne ñoo fa toogal diine ba noppi su ñu leen laajee ba jaaxle ca loola ci li ñuy door a dem ci ñee su fekkoon ne imaam yi def nañ taxawaay yi nga xam ne moo war dëgg dëgg dëgg jote yey war a yóbbu nit ñi foofa ñoom danañ leen dajale saafara ko doxal ko mu jaar ci yoon moom war a jaar jàmm ne bay ñu delluwaat kenn ku nekk di dund la nga doon dund ndax lu gën a bari kat tribunaux yi ñu fa xas moom bu ñu fa jógee ñooñu moom daggoonte nañ faaw bat noonoo day daal di dox seen diggante bu faaw te imaam bi buy réparé diggante ak diggante la ko gën a itteel mooy ki jot sa àq kenn ci jot sa àq waaye nag diggante ba itam des fa doon diggante jullit ak jullit doon diggante boo xam ne bu rafet lay doon kon imaam yi wet googu war nañ koy liggéey liggéey boo xam ne bu rëy rëy la ci e, xëccal askan wi ay njariñ dàqal leen lépp loo xam ne xeetu lor la kon kooku mooy ñeent to ñeenteelu tomb bi wane ne imaam am na jataay boo xam ne bu rëy rëy la ci lislaam bi nga xamne nak moy gëna gën importance bi nga xamne iliman ilimaan jité ci jàkk amna ko modi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak al khulafa rashidun muy xalifaam yi nga xamne ñoko wutu won ci seen histoire bépp ak sax khalifa yi ñëw seen gannaaw ni ko sunu mbokk Cheikh Mouhamad doon tudde sànq xilaafa gi fa mu jaare ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ca saxaaba ya jaar ca banu umayya jaar ca banul abbas jaar fi mu jaar fépp ci turki li gën a bari ci histoire l'islam boo ko jàngee da ngay gis ne ilimaan ji jiite nit ñi doon seen njiitul réew nekk ka ñuy tuddee amirul mooy ilimaan yi jàkka ji mooy élimaani jihaad ja itam boo fa dikk foofu nga koy fekk kon loolu day wane ne jiite julli gi lu rëy la ndax ka koy jiite moo war a doon te jiite réew mi su fekkee taarixul islam noonu la doon doxe loolu day wane place bi nga xam ne ilimaan am na fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musul yónni nit sax ci benn guerre mu jiite guerre ba nekk amiru ñoo ñee dem di xeexi jihaati fi sabilillah lu dul moom moomee leen jiite mooy jiite julli ba ba ñu del siwaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaan di génn madina ku mu fa wuutal yow yaay doon ilimaan ji jiite nit ña yaay doon itam seen jiit ci yeneen yi ca def yépp ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di del loolu defal na ko ñu bare bare bare bare bokk na ci Abdullah ibnu Ummi Maktum jiite bàyyi na ko ci madina lu bare bare mu jiite ko Ali ibnu Abi Talib itam bàyyi na ko ci madina mu jiite ko ak ñeneen ak ñeneen ñim daan yebal ci ay dëkk itam di leen fa yebal ñiy woote ji ci lislaam di ko tasaare ñooña ñoo daan jiite nit ñi julli ñoo doonoon seen jiit itam ci lépp loo xam ne lu aju ci seen wàllu diine la maanaam seen àdduna ak seenu julli